lead vocal de marginal group, you know? Euh, ma ngi tudd mamélie, Ly, marginal Adja Diaw ci groupe marginal la bokk. salaamaaleykum alaikum salam, man la Kumba Sarr choriste groupe marginal. bonjour je m'appelle Johnny King guitariste de marginal. Quoi, Tafa Euh. bëgg rapidement question réponse nga wax ma dire bi ngay woy di lan la thème bi sama yaay laa ko jagleel en même temps faire regrouper la terre mère c'est-à-dire Afrique. sensation là. non parce que lu tax fait wooyee nous si ah ñu <laughs> lu tax dafaa wooyee ñu am facilité di ko këral parce que dañ ko sentir ni muy woy. waaw mais comme ni nga rek en fait comme comme ni mu ko non, dal, xam nga il faut nga am loo ci sentir sa bir xol motax parfois ñun bu ñuy aussi du ñu am benn problème parce que maman lay way te ku ne am nga yaay. ah am na si am importance parce que il faut nga xam musique bi ngay way ba paré ndax do ñëw juk rek di awu dé da ngay xam awu fu mu wara a jaar fu mu warul jaar.